da ngay mel ni dañ la yóbbu ba ci benn àll ñu bala nga war a débrouiller pour génn ci yal yàlla jàppale vraiment am nañu tey euh, yeewu bu metti metti metti metti metti yàlla na ko yàlla xare àjjana vraiment am nañu tey lu metti metti metti metti metti ah Youssou Banaaw ba nga déggee information bi information bi nan la la def ba nga xëy yow dégg information bi moo yee ñëpp moo yëkkati ñëpp ci lal wàcc leen xam naa loo xame ni bu xewee buntu amatul jóg rek mooy donc mbetteel day waar day waar day waar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 parce que dafa ma daan jël man ak moom ak du sekk ñu dem fekk ju ko balafon toog moom yëg ci kaw la sur la scène wooy ba 5 heures du matin ñu pare ñu duggaat suñu kalandoo ñibbi Pikine dem jël suñu ndékki ku nekk dem këram li ma gën a neex ci coon nag sama diggante ak moom mooy sincérité bi nga xam ne moom la suñu amitié amoon xam nga amitié mënul weesu ku lay nemmeeku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 Thione Seck zéro faute. Euh, yéen ñaar kan ngeen gëj a déggante ci wàllu kàddu yéen ñaar yow ak euh, matul matul weer. Mhm. ndax bi ma bi may dem Podor juste parce que yàggul bi ma jógee Podor la ma woo. man ak moom ñoo ko def loolu rek ñàkk ki ñaan la. jotul waaw man sama bés ak moom jotu woon génn li lay wan ci ñàkk ki ñaan bi mu def album génération yëpp la man bi may woo sax boobu mën naa ni euh, boobu kenn xamu ko moom mu dégg ma maa ngi woy ci banlieue bi fii di am na benn xale bu ne ci banlieue bu woo ma def ak man benn featuring conseil ma. te it lépp lu ma mos a conseil rek ma teg ci sama tànk rek maa ngi koy gis li ma ci mën a fàttali dafa am benn bis ñu daje grand théâtre may dugg moom muy génn mu ne ma haa ah, fiskaay ma ñëw mu lonk ma dox ak man ba fële na ma damaa déglu sa benn morceau boo way waaye nii nga ko wayee fii neex na ma fii de bu ma sañoon nii nga koy defee nii ak nii te kooku yaa way la ku mu wax nii woo baax rek noonu baax ma kontaan ci trop trop trop ci ay morceau laa jàngee way ay ndayu ndayu kenn la. laxas doom sàndi xam nga doomu bàyyi bu lekk reer ba ma ñun ci ay wayam la ñu jàngee donc nag ñun suñu papa def ñu fi bàyyil benn défi bu ñu war a relever moom li mu fi teg ay sët sëtaatam mën nañ ko jëriñoo donc ñun ñi nga xam ne ñooy génération bu bees bi ñu ne ñoo war a ñëw def lim fi def. waaw dama ñëw juste fekk muy génn mais damay dem nii incha allah ci cimetière yi teewee ko euh, ñëwaat fii yendu fii ak suma frère ndaxte bu lépp passé suma suma frère la tey du moom moo ñàkk. ñun ñëpp ñoo ñàkk comprendre nga tey du moom rek moo ñàkk ñun ñëpp ñoo ñàkk moom moo moo jur waali mais ni mu juree waali rek la ma juree donc noonu la nekkee sam papa te showbiz showbiz la mais ñun bu lépp passé ñun ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk baay comprendre nga bu lépp passé ñun ñoo far quoi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay du moom rek moo ñàkk sama papa moo ñàkk comme man sama papa ni mu nekkee ni mu nekkee papaam donc man ngi ko koy jaale di ko ma saw di ko wax yàlla na ko mi ngi noonu El Hadj Baba Maal moom it mi ngi noonu lii daw yaram kon yaa naa ni tey ñëpp a ngi tey ah, képp ko mi ngi noonu génn sanfandoog ak Youssou Ndour ah, ci tiis bi leen dal tey ji waaw. Ah. on a pour ce je pense que Thione vraiment participé aussi à faire rayonner ce qu'on a ci sa teewaay. kontaan naa ci ci waay yal nañu yàlla jàppale. ñu noonu loolu loolu ngeen gis noonu Baaba ah, Maal ak Youssou Ndour ñu saafonte ah, naxa nañu dox kàddu yi mu. c'est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 Thione moom ma faire découvrir euh, la musique moderne sénégalaise parce que daf ma daan jël man ak moom ak Doudou Seck ñu dem fekk ju ko balafon toog moom yëg ci kaw la sur la scène wooy ba 5 heures du matin ñu pare ñu duggaat suñu kalandoo ñibbi Pikine dem jël suñu ndékki ku nekk dem këram li ma gën a neex ci Thione nag sama diggante moo mooy sincérité bi nga xam ne moom la suñu amitié amoon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 waaw mi ngi noonu kàddu yooyu noonu Baaba Maal la euh, jox ko teg ko ci euh, ci ci ci loo xamee ni lu mu témoigné noonu macha allah loo rafet na mu ngi noonu dugg ci margo bi euh, fas gis ak kii di monument bi ma leen wax chaque jour rek ne moo wàcc liggéey tey fii ci Sénégal.